waaye ak ma Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom APR rek ña ca nekk la ñuy sàkku ci Macky Sall moo di mu xam ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la nee nañu seetaan nañu ba premier ministre bu Sénégal génnewuñu ko ci biir APR xoolee nañu ba njiital assemblée nationale génnewuñu ko ci biir APR duñu toog nag di xoole ba bopp Sénat di leen rëcc tax ñu bëgg ci Macky Sall mu xool xam xel ne sama bopp la gënal du bañ naa la yéen a kay bi observateur nañu Macky Sall damuñu ji dañu ko njatt mi ngi ci diggante parti bi ak patrie ndax parti ba di lu moom lay jiital wala ndax li ñëpp bokk moom la war a jiital moom Macky Sall njiital APR yéen a kaay bi nañu tontu na ñi doon sàkku ci moom mu jóge ci bopp parti bi di APR ndax munta doon jiitam réew ba noppi bëgg jiite parti Macky Sall xam ne fa ne day des ci bopp parti bi di ko jiite Sénat googee yéen bi di Sud Quotidien nañu waa APR bëgguñu mukk njiit la rëcc leen la bëgg moo di gannaaw poste premier ministre rëcc na leen bu assemblée ji APR sàkku na ci képp koo xam ne ministre nga te bokk ci APR baa ngay directeur général wala bokk ngay député ngay cotiser weeru yàlla sàkk ngir ñu doxal parti bii di APR ministre bu ca nekk sas na la ñeen fukki junni directeur général wala député bu ca nekk mu sas la ñaar fukki junni boo dee conseillers spéciaux ci présidence de la république nee na ngay joxe fukki junni loole lépp ngir bëgg ñu dajale ay koppar yu parti bii di APR di doxee réew Macky Sall gas tout Abdoulaye Wade dafa signé woon ab décret jox ay général ay 4-4 boole ci ki bu ñu retraité dañu koy man di laal loolee Macky Sall kase na décret ba moom Macky Sall ak na mu doon fan yi yëpp ñeenti weer ca ba ñu ko fale ak léegi moo di saa xëyee dem pale bu ngoon jotee mu ñibbi këram loolee yéen bi observateur nañu léegi tey mu dakk ndax bu jugee ca màkkatal mu dana buub ay kaakeem ak ki dëbësam dem populaire ca la xëy ñëw tey ji jox kàddu gi professeur El Hadji mu dikk tëj wax ji la mu xamle moo di article 97 bu règlement intérieur bu assemblée nationale ci boppam moo jaaru yoon règlement boobee professeur Mbodj di xamle ci journal bi nañu moo war a taxaw assemblée nationale ak doxin wa ba kenn du am lenn loo cay wax maître Doudou Ndoye nañu Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal saa yu ko soobee mën na caa def déclaration politique générale am loolee ma nga aju ca moom ak dundin wu ci wàllu politique politique gi laxasu ci plan jaxaay ak njuuj la di jëwrin amee urbanisme ak habitat kaddu yi mi ngi ci xët mu njëkk direct info soxna si di fa xam ne ne plan jaxaay googee kuy wëri njuuj njaaj ak tappaleek lii ci wàllu politique ba daj ko te ngay dëppee te duñu ca yam ndax yëf yi danañu ko lijjanti enquête ko leeral ko ba milliards yi ñu ci dugal ñu xam ana ci yeen anam la ñu ko dugalee ñu lijjanti ji ci observateur la dal Ibrahima Gueye may chef protocole bu ministre intérieur yéen kaay bi nañu jamono ji ma nga ca yoon ndax dañu fekk ci moom ay faux billets yu takkoo takkoo rappeur bii di ak bes ak baayam journal bi lañu tudd nañ leen ci yëf ñoom ñaar ñoo nga ca loxoy yoon yoon yoon wi jëm mbuur ca lay tegu seeti footballkat bii di Moussa Konaté di xale bi jommal àdduna ca jeux olympique yewoon ca Londar xale bi xëy na sëq waxtaan wu ya ak waa observateur lu bari lu ñu umpale woon ci Moussa Konaté journal bi xëy nañu ko xamal benn moo di Moussa Konaté moomee laata muy doon ab attaquant di dugal ay but ab gardien de but la woon maanaam ab góol la woon Moussa Konaté ci biir yéenekaay bi muy xam ne ne but yooyee muy dugal lu ko yàlla